jaara man mom Ousmane sonka la won mais jaara tax ma dem fi mu nek parce que ñun mosuñoo xam xaalisu état buñ ko xamé yalla ak moma tax kon fu jaara joxoñ rek fa lañuy dem muy ñun suñuy jëkkër suñuy rak ñun ñëpp jox nañ bop jaara inshallah rabbi ndam rek ca kaw ca kanam. mu Tambédou du laa tudd euh, ñun dañu ñëw ma and ak sama wa koñ and ak samay doom and ak ñëpp du ñëw jappalé jaara ndax kat ministre daf ñoo defal ñu kën ñun jigéen ñi dañoo toogoon di taxawaalu ji ci mbedd yi di kontpati lamp yi benn ci man li ma yàgg di wax waaye jaara tax ministre financé ñu ñuy liggéey amatul kenn kuy toog amatul kenn kuy xëy tëdd sa kër yaa ngi liggéey di def ci sa bopp di liggéey di def ci sa njaboot kon ñu ngi sant yàlla ginnaaw bi ñu sante yàlla sant jaara sant ministre amuñ fayam nag bu ñu yëkkati woon naaj bu tàng jër sax dinañ jug taxawu ko taxawu taxawu Amadou Ba ndax kan ndax jëmmi jaara ji fu mu ñu yëkkati rek danañ jug dem fa ndax moo ñu ko ji buñ ko ko joxoon mu lekk ko tëdd konoon ñun am nañ fu la am nañ fayda danañ tëdd suñ kër yee waaye lu mu am da koo seddale ñëpp bàyyiwut kenn. Awa Ndiaye laa tudd waaw lépp de jaara ja woo tax ñu def ko. ndax ñun moom wax dëgg yàlla xamuñu woon Amadou Ba suñu waxee dëgg rek te yàlla tax xamuñu Amadou Ba waaye Diarra dafa ànd ak jigéen jigéen boo xamante ne nii muy ministre de la femme mu xool ñu gis ñu ñun ñii kat ay jigéen lañ liggéeyuñ defuñ dara ñu ngi toog mu financé ñu xaalis jox ko jaarale ko ci loxo Diarra Diaw Diarra jël xaalis ba jaarale ko ci ay loxo jigéenam muy bo mooy waa boo bokk gis-gis lañ woon Calabas boobu ba tey nag suñu wooyee ci ki ministre bi dafa bëgg ñu jappalé ko si kiñ bëgg ñu jappalé ko moy nañ ko jappalé si Amadou Ba kon dañ ko ci fekk si ndax ñun li bëgg lañ bëgg lu mu bëggut bëgguñu ko ndax lepp lu ñu bëgg suba ba jant so mom ñoo ñukoy defal kenn duñu ko defal xamuñ kenn xamuñ Amadou Ba kon tay suñ taxawé ba sol ay yéré Amadou Ba di diko di taxaw fi war ko nekk war ko votel gil dimas jalla ak jaara jawa tax ta jaara jawit yalla ministre bi mo tax lo rek tax ñu leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu fi taxaw ni ku si waxal sa diggante yàlla am na ñu fi nekk Sonko am na ñeneen ñu fi nekkoon Pape Diop ba si ñun ñuy taxaw di wax ak yow tey jii ba Pape Diop lañ woon waaye tey nag su Pape lañ waaye nag soo gisee tey ñu taxaw ne suñu carte dañ koy yóbbul Amadou Ba pour ministre de la femme moo ko tax te ministre de la femme bi soobee yàlla ñun ñëpp suñuy carte moo ko moom incha allah bu demancé ak suñuy doom ak suñuy jëkkër ak suñuy càmmeñ ci biir kër yi ci biir marché yi ci biir hôpital yi ci biir école yi ñëpp moo leen fa jëlee te moo leen fas yéene yóbbu ci Amadou Ba yëpp ñi fi teew ñëpp na ngeen déglu message si mu jàll comme ni ko ñenn di ko defee ci fan yi euh, këroo kër jàkkoo jàkka jumaa jumaa marché oo marché hôpital yeeg fu ne ngeen jàllale message bi ak yow kat ak ñim andak ak ñeneen paré nañoo woteel Amadou Ba inshallah allah mu ko ñu dañu yàggal liggéey ci social yagga a ak suñu nit ku ànd ak ñun ak ku ànd ak ñun dama ne man suma ma pour def wala jug pour jappalé xàmmewu parti xàmmewu ko ku ak man xàmmewu ko ku ak man ma recenseel askan wi su ma kenn du nek ci jafé jafé lepp luma way jambatal suma su fajj ko kon alhamdullilah bi nga xamé ne bi ngeen xamé ne alhamdullilah bi ngeen bi ngeen dé toj sen calebasse bi ku na xamné suñ calebasse bi nga xam tay tay bonna ay calebasse yu bari ñu ko tuddé won calebasse da bokk gis-gis way tay yaakar na law na ci quartier bu né ñu koy toj toj bu di ñu ma tay nga interpeller ministre de la femme ndaxte ñun yàgg nañ di sonu dégg nañu ministre de la femme day am day dafay am ci Sénégal yëpp war a jàppale jigéen ñëpp waaye ñun day mosu ñoo am financement te yaakaar naa nag yàgg nañoo interpellé ay ministre de la femme ñu interpellé Fatou jaane benn yoon ci yar ak teggin lu ñu ko defuñ ko dara ci yar ak teggin ak dal mu ne man li ma président dénk du man rek du man maa ko moom du ay ñenn ci part ñoo ko moom jigéen ñëpp ñoo ko moom ñun ku ne xam ne ñu ànduñu woon ak Fatou Diané ku nag xam ne ñun ànd ñu woon ma Macky Sall ñun kan lañ àndagoon ak président Papa Diop mu nekk ci opposition waaye ku ñu xam-xam ne doxuñu daraay caaxaan Fat Diané ooluñu laaj ñu lu war a laaj xam na ñun ci lu weer lañ nekk mu financé ñu 10 millions ku nag xam na 10 million ay téeméer téeméeri nit 10 millions matul dara ñu jëlaat xaalis boobu jigéen ñi delluwaat ma xaalis boobu ma tekki sama 2 millions ba ma ci tegee sama 2 millions muy 12 millions ñu dem tasaare ko ci yenn banque lu ma ñetti banque banque lebal ñu xaalis bu bari tey jigéen gi fi taxaw tey am na ñu ñëw am na ñoo xam ne bu ñu jëlee tamit sapare la ñuy ñëw jigéen gi fi taxaw tey waatoo waatoo financement de femme bu Fat Diané boobu noonu ba tax na ba tax na jigéen yëpp volontaire na lépp lu état du joxe wala yëfi état ñu ngi koy doog a mosee ci ministre de la femme Fat Diané ñooñu ñun tey jii ñun ñii jaara jaw ndañ dem lijjanti ku fat jaane and ak mom la ngi wateel loolu moo ñu duggal tay ci ci and ak amadou ba ma o fat jaane nako fat jaane mu ne waw mu ne dama bëgg nga wax ñu yow kan nga andal parce que ya ñu defal teranga bu reuy bo xam ne ko faté amna ño ñoo xam ne ñu ci jappale seen jëkkeer yi amna ño ñoo xam ne ñu ci yor seen kër yi amna ño ñoo xam ne ñu ci yor seen doomi kon wax ñu kan nga and ak ñu and ak ñu and ak mom mu ne man amadou ba la and ak te fii ba kiiri koro kuma xamne ne taxaw nga pour and ak amadou ba pare naa pour ñu jàpp ci mu gagné premier tour Fall Diagne sa xel na daal wax la alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf jërëjëf kontaan nañu jërëjëf parce que ku ñu xam xam na nañ kuñ ànd ak mu jël pee keroog bi nga xamee ne am na ku doon laaj fii mairie Kaolack laaj ko ak yeneen i dañoo taxaw takkal ko star bu na ko yaay doon maire bëgguma tudd tur yaay jël maire bi def na la mu war a def deful la mu war def ñun lijjantiwul loolu ci luñ soobu rek dinañ ci soobu ba def ko ba def ko au fond yàlla def na kooku jël na maire bi tey maa ngi leen di wax fii Amadou mooy gagné premier tour kon incha allahu taala suñu doom yi suñu papa yi suñu jëkkër yi suñu yaay yi yéen ñëpp nañ paree woteel Amadou ndax xam naa ndax mu ngi ci yéen wala nekku ci ndax te yéen woteel Amadou ba lépp nag borom. sant gërëm rek lañ desel moom moom moo ci des ñu ngi sant Fatou Ndiaye di ko gërëm di ko wax ne ma nga ca ma nga ca njaareem mérité la wut fii waaye liñ ko joxoon jigéeni Sénégal yëpp a ko bokk ñuy financé bëri na liggéey na liggéey liggéey bi mu ci ayib man ku na xam ne damaa yàgg opposé Macky Sall damaa yàgg opposé Benno Bokk Yaakaar Fatou Diagne teraanga yooyu ñu lebaloon li mu taasukat yi di wax naan tey lañ tey ñu fay la sa bor tey la leble tey la woon neex lu ñu lebal dañ la ko fay ci élection yi ba mu saf sànni nañ kenn ku du Amadou Ba 안녕하세요. parce que togg nañ suñuy ndogu jeunesse bi ñi ñuy ñëw ñu bëree ngi ñëw safoor taximaan yi ñu ngi ñëw parce que ku si nekk naa suñu bëgg-bëgg bi nañ ci ànd ak ñun fii la ñuy ndogoo ba pare def délégation bu mag ma jiitu ngeen topp sama kaw ñu dem tertu ji Amadou Ba dem toog ba xadd ba passé xadd heure bu Amadou pare rek ñu pare nañ ku ne xam ne ne koor dafa metti lii gëm-gëm moo koy waral ak nit ku dëgg ñaar nag ki nga ñaw mi yow mi nga xam ne yaa jiite sa mbooloo nu nga mel rek ñun la say mbooloo di man man ñaanu ma yàlla triser leen ñaanu ma yàlla fen leen ñaanu ma yaat la woot ma ne nag waa Benno Bokk Yaakaar yàlla boole nañu maa ngi talal ñëpp loxo ñu àndandoo yaatal xol yi jubboo nekk benn benn objectif rek lañ am muy Amadou Ba gagné premier tour man